sabaru bamsatil junnatu saatari rabbul bariyatil badal saatari rabbul bariyatil badal asataqalu man xalawni bidadal asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh yéen sama mbokk yi ñoo ngi leen siyaare mbokki jullit yi mbokki dëkkandoo mbokki ñëpp sëñ Bamba moom képp koo xamante ni bii rek der nga ñuul der bu ñuul nga rek sëñ Bamba da laa si génn sakkantuma laag mu ne soxol kon yàlla na yàlla may safar bi yàlla ñu dugg ceeg jàmm génn ceeg jàmm màggal ko ak jàmm génn ceeg jàmm ci kattanu ni ko sëñ Muntaxa waxee te yàlla nañu ko dimbale ban defe ko noonu am nañ ci yaakaar am nañ ci yaqin ndax sëñ Bamba màggalam gii ñun ñun ñu ñun ñu màggali ko wala ñu bañ koo màggali suñ bakkan dem sax mënu gënal kon ni ko suñu taax waxee rek jàmm rek moo ci amit ndax defoon nañ ko da defoon nañ ko daaw ban waxee li ñuy waxe loolu ñuy wax ban ko waxee ban ca génnee daa jeex tàkk kon lii ñu jumlu nii yàlla na balañ ci àgg yàlla na jeex tàkk comme nam jeexe woon daaw ci kàttanu Sëriñ Bamba mën na lépp attan na lépp kon nag euh, ba loolu jàllee ñun fii marché bi am na bar nañu ko fi safar lool te incha allah noonu lay amee ni ñu koy defee noonu koy defee yaakaar naa su ma juumoon am na ñeent ñoo xamante ni bi dañ ko fi dañ ko def Padois dañ ko def fële ko def fële Cité Mineire yëpp waa sëñ Bamba la ci ñëpp ci marché bi la nekk ñun gëmuñu ko sëñ Bamba waaw kon nag yàlla kon comme ni ngeen ko laajee rek yàlla koo fekkee daal ak jàmm ci ànd ci yeggu ci ak jàmm ndax ki demoon ci géej gi ñëpp la demoon maanaam boo koy xool maanaam si ni sëñ Bamba maa sumaane laay bu mu dem bu demutoon géej gi xuma fu mu jëm kon ñun ñëpp a war sant comme na ma ko waxoon ca njëkk ba képp kuy der bu ñuul képp kuy der bu ñuul sëñ Bamba da laa sigil képp kuy der bu ñuul rek sëñ Bamba da laa sigil safar gi liñ ciy def lépp lépp loo xam ne luy bernde rek dañ koy def ci safar gi bu soobee yàlla ndax sëñ Bamba jaral nañu lépp rek dañuy def ci safar gi loo yaakaar ci lu baax jàng xasaayid jàng alxuraan ngir sëñ Bamba daan ko def. ذي الجنة